المديرية الجنوبي صاحب السعادة الشيخ محمد بن طلبك ينصره مدة أوفر تبارك وتبارك liggéey bi nga xam ne moom la sumb di ko liggéeyal islam di ko liggéeyal yoon wi ci borom may ko ci ak àggale te wax bu nekk tawfiqam di ko gënal wax bu nekk ñu ànd ak moom di ndokkeel mboolem kilifa diine yi ak fu mën a nekk di ndokkeel bu baax daayira Muqaddamatul Xidma ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom nga saxoo di ko liggéey ci jumaay seen Tuuba ji di jégalu bu baax ndax feeñ ci kàddu gi am solo ñu dëggal ñu yàlla rek jéem def suñu kéem kattan ci li nga xam ne moom tax a toog fii tey kon ni ko sëriñ bi waxee tomb bi ñu war a waxtaan moom dawaabidul amri bil maaruf wal nahyi anil munkar ay tënk wala ay champ yi nga xam ne ku jub dikandung di rumah di wan warga jatuh tengkuyung hamil kui di dia uyu di air aksapan warga jatuh jambu benar mereka jambu amsor kinyari alam amsor itu baru ham nah Al-Quran aja nyuruh ayo hadis yang lebih sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci ay yoon boobu xam-xami umma yi ñëw fam fàcc ko dàngat ko ci anam yu bari fay ñu bind ci ay téere yu bari def ci ay jàngat yu bari xaw ma benn thème boo xam ne ko am jàngat ak yitte bu ko yitte bu ko xeet bi yittewoo borom xeet borom xam-xam yi saa su nekk ci jamono bu nekk soo demoon ci béréb axbar yi ñi nga xam ne ci lañuy tàmbalee jàng da nga di fekk muy wax wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar li ko tàmbalee ci téere boobu nga yéeg ba ba nga dem ci téere yu mag yi téere boo ci dem da nga fekk mu tudd baat yi te muy digte lu baax di aaye ab safaan ko boole ci lu ñuy tudd ay faraid ak i sunnam ay fard ak i sunnam ak ay teggin benn daf ko fekk ci njël benn téere yi wala daf ko fekk ci mukk waaye téere yi noonu lañ ko yittewoo ba fi démb ba fi tey ci wàllu yi jëfe gi digle lu baax ak aaya ak safaan dafa nekk lu am solo ci diine ci lu am solo yi ci dund askan bi ndax bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki mujj ñëw ci tànn ak yonent yi ci moom it la yonent gi tëje gannaawam bi yonent du ñëw gannaawam ak téere bi wàcc kon ah xeetam bi fokk dana am ñoo xam ne ñu taxaw yoon liggéeyam boobee ko jàllale di ko yeesal di ko fàttali jaam yi digle lu baax tey aayal lool kooka lu mën na nekk ndax moom sax waxoon na ne ambiya bu ulama ummati ka ambiya yi bani israil borom xam-xam yi ci aw xeetam seen mission mooy mission yonent yi banu israil yi kon saa su nekk mënut a ñàkk ñoo xam ne bu ko saa xaw woote bii njàng leen nii ñoom ñoo koy topp di ko jàngale di ko yeete di ko leeral moom la al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar te mooy di digle lu baax di aaye ak saban mboolem yonent yi dafa mel ne moo doon seen mission ndax jàngale ak yonent si weesuwul di digle ak di aaye di digle ndigal yàlla yi di ko leeral di di leer tere yàlla yi. ustaas ak yónni yoon bi si ne bis sax dafa teg seen jàng ne lépp ci suuf ñaari rek la tënk leneen lu ko génn dafa ñëw ngir firndeel ak di leeral ak di feddali lii nga xam ne mooy digle lu baax ak di aaya salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it mu bokk ci ni ko yàlla ni yàlla melale ak yónnantam ndax suñu borom ba mu koy présenté ci téere yu dikk yi tawraat ak injiil mi ngi ko présenté moo ak aw xeetam moo ci saxaaba ñu di leen présenté ñoo xam ne dañuy dikk lu baax di ay alladina yattabiuna rasula nabiyya alladhi yajidunahu يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحب لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال سيما ربي فايت بريتان تي تورا تي مو اك ني مو اند ني كو بريتان تي تي يونت بو خامي نبي بومي لا كو خامي جال مو بيل باي مو اك ني مو اند دني ديك لو باخ دي اي Mon mission ak liggéeyam Rasulullah alayhi wa sallam le it lépp mi